professeur Assam Touré. Euh, je suis le président du jury 895. Donc, je viens de l'université Cheikh Anta de Dakar. Alors, pour ce qui est du déroulement de l'examen, pour le moment, je touche du bois, il n'y a aucun problème. Tout se passe dans l'ordre. Souvent, les problèmes qui sont rencontrés, c'est au niveau de la surveillance. Alors, mais le nombre de surveillants est suffisant. Euh, trois surveillants par salle, c'est acceptable il n'y a pas de problème majeur. Euh, pour ce qui concerne notre jury, nous avons seulement 299 candidats, 167 filles et 132 garçons. Euh, donc, euh, pour les absences, nous avons constaté 11 absents. Et voilà, je pense que dans l'ensemble, c'est ça. C'est des séries. Pardon Alors, pour ce jury, nous n'avons qu'une seule série. C'est la série L2 alors euh, avec les mêmes options SVT économie. waaw euh, jury bi mon jury 895. alors euh, lycée a une particularité bëriwul ci Sénégal fu ñuy gis lycée bu am cinq jurys proviseur je pense que am na habitude bi tàmm pour déroulement épreuve bi mom amul un problème d'habitude liñ dan am problème ci jury yi mooy un am surveillant yu doy Euh, waaye fii à ma surprise gis naa ni surveillant yi moom doy nañ ba ñett la ñuy doon sax ci salle bi waaw li nga xam ni li ma koy constaté ci juri yi ma euh, jot a def euh, bëriwul waaw beneen bi mooy bu dee suñu jury ñun alors ñaar téeméer la ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeenti candidat jigéen ñi ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-benn fukk juróom-ñaar góor ñi téeméer ak fanweer ak ñaar alors euh, euh, ñi ci absenté nag ñi nga xam ne ñëwuñu euh, xaw ma lu tax en tout cas am na kenn ku ñëw kooku moom def feebaroon waaye am na fukk ak benn yi nga xam ni ñoom ñëwuñu dañoo absenté waaw loolu de laa amoon ci lu may wax ba série bi comme ni nga ma ko laajee ci tubaab c'est benn série rek lañ am muy série L2 mhm. man maa leen jaafal jaajëfal merci et au revoir Assane Touré